ngir topp bëgg-bëggu askan wi waaye politique yi di gën a dugal ci seeni waxtaan yorin bu sell bu ñu war yore nguur gi gannaaw ci seeni kàddu bu ñuy firndele boobu la mu ngi mel ni njiit yu ñu fal bees dañu ko dugal ci anam bi ñuy tànnee jëwrin yu war a liggéey ngir ñu mën a jëfe lépp lu ñu digoon askan wi keroog bu ñuy taataan seeni baat ci jongante falum jiitu réew bu atum 2024 mu wute lool ak l'enquête bi nga xam ne ni moom la takk der yi di def ngir mën a xam ba xam ngir mën a xam bu nekkee ki ñi fa yóbbu kalaame ko laale na ci luñ koy toppee am déet waaye bii lee l'enquête li ko tax a jóg mooy xool bu nekkee ki nga xam ne ni moom la ñu bëgg a tàbb def ko jëwrin loxom set na wala rek nag yelloo na bile boobu lee l'enquête nag mën nañ ko jaarale ci laaj ak tontu bu ñuy sekk ak ki nga xam ne nii moom lañ fas yéene jox post bi waaye tamit mën nañoo gëstu yeneen fichier lu ci mel ni yu laale ci wàllum yoon ba xam amul antécédent judiciaire wala rek ñu saytu alal bi nga xam ne ni moom la am bu nekkee ni mu ko amee dëppoo nag yoonam déet ci noonee daañu sekk ak moom laaj ak tontu ci fànn yu bare lu ñeel dundam ak ni nga xam ne ni moom la doon liggéeye waaye bu ñu demee ba seetlu ni moom mi le laale na yoon wala def na lenn li nga xam ne ni waroon ak nu yoon di doxalee dañu koy daal di génnee ci course ba l'enquête boobee ay service bu état ñoo ko war a def li ci mel ni police renseignements généraux yi ak yeneen yi ni mel waaye mën nañoo jël sañ-sañ yooyu jëbbal ko ab nit bi nga xam ne ni jàpp nañ ni mën naa doxal mbir mi bépp la xibaar yi nga xam ne ni mën nañ koo joxe ci l'enquête boobu te du dëgg yoon mën na cee topp ki nga xam ne ni moo jibal yi la kàddu